ci woyofal bi damay njëkk a leeral ni euh, tey boo jëlee client wu Senelec yi euh, téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ñu ngi ci woyofal euh, avant ñuy ñëw fii tey ak même fan yi yëpp dégg ngeen wax yi ci cher ñuy wax ci wàllu courant bi wal ñii di wax ni ñoom dañu bëgg a dellu poste paiement ak yooyu mais woyofal ni ko baat bi wuyoo ngir woyofalal askan wi ni ñuy mën a jëfandikoo courant la ba noppi tamit li ñuy dugal moom la ñuy jëfandikoo maanaam euh, boo dugalee tey ñaar fukki junni loolu ngay jëfandikoo boo dugalee ñaari junni loolu ngay jëfandikoo boo dugalee fukki junni loolu ngay jëfandikoo waaye mu doon loo xamante ni tamit moo gën a yomb ci ni nga xamante ni moom la ñuy facturer te par weer lañ koy defee weer bi bu ñëwee da ngay recommencer à zéro alors Euh, mu amoon nag benn tranche bu ci yokku boo xam ni nit ñi dañu xawoon seetlu tuuti ni euh, euh, factures yi wala woyofal bi ni muy courant bi di demee xaw na gaaw tuuti président ni nañ ko xool bu baax biñ ko xoolee mu digal ñu ni ñu nañu dindi troisième tranche boobu donc woyofal bi day dellu fa mu nekkoon may leeral foofu tamit ni muy woyofal wala post paiement état bi dafay gunge ñii nga xamante ni ñoom ñooy client wu senelek tey ba fi ñuy wax nii facturé wuñu normalement ki nga xam ni mooy consommé parce que tey bu ñu ko facturé woon normalement facture du toll fii dina ëpp fii lu gën a bari niñ ko gisee nii tey tey mën nga jàpp ni ñaar fukki dërëm yoo xam ni consommé nga ko ci wàllu électricité jàppal ni fukki yeeg ñaar euh, état bi moom moo ko ci dugal ngir jàppale la président dugal ko ci ngir jàppale la yow juróom-ñett yi nga joxe mais fukki yeeg ñaar moom moo ko joxe loolu nag mooy ni ñuy toggee courant mi ngi jóge ci pétrole or pétrole comme ñun tàmbalee gu ñu euh, exploité suñu pétrole bis bu ñu ko tàmbalee eh, courant bi incha allahu rabbi dina gën a wàññi mais ba fi ñu toll nii courant bi ñu ngi koy toggee pétrole bi mi ngi jóge bitim réew te pétrole bi ñun prix bi du li nga xamante ni ñun ñoo ko maîtriser léeg-léeg day yokk léeg-léeg mu wàññeeku léeg-léeg mu yokk yokk yu jéggi dayoo waaye bu dee saa yu yokkee yokk bi jéggi dayoo Sénélec facturé facturé bu jégg dayoo loolu du sotti moo tax président wax ni nañuy continuer di dimbali ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ba jàpp nañ ñi première tranche bi moom ñoo ñu kenn du leen yokkal dërëm tey lu pétrole bi yokk-yokk lu ni ñuy defaree courant yokk-yokk ñoo ñu moom kenn du leen yokkal dërëm waaye am na ñoo xam ne nag bu leen état bi jàppalee ci fukk ak ñaar ñoom ñu war a indi juróom-ñett ngir Euh, mën a séddoo li nga xamante ni moom mooy effort yi ñu war a def te loolu dama ciy profité waxaale ni tudd nga électrification rural tey électrification rurale euh, dëkk yu bëri ñi ngi xaar jot ci courant te bi président di ñëw 2012 mi ngi fekk dëkk yi am courant yu ndaw yi ci junni ak juróom-benn fukk ak juróom-benn loolu rek la fi fekk ci dëkk yu am courant ci diirub lim fi toog yóbbu na ko ci juróom-benni junni. ak juróom benn fukk ak euh, juróom kon dafa mel ni euh, yokk na lim bi nga xam ni moom la ko fekk yokk na ko lu ëpp juróom benn yoon ndax gaawaayu doxin wi ak baralu liggéey bi ak yitte bu mu def ci ñëpp am courant looloo tax tey euh, alhamdulilah ñu bari am nañ courant mais bu ñu jëlee lépp def ko ci subvention bi bañ a jël lenn ci gafaka réew mi nga xamante ni moom moo koy séddale ñu yóbbu ko ci dëkku kaw yi ñooñu dañuy toog di xaar donc ñi nekk fii ci taax yi il faut que quand ñu def tuuti effort participer si paiement yi li ci des nag président gàddu ko gàddul leen ko mën na tamit gën a yóbbu courant ni mu koy defee depuis 2012 ba léegi ci dëkku kaw yi. Euh, BP compagnie la bu mag buy liggéey ci wàllu pétrole nekk ak ñun ci projet bi nga xamante ni ñoo ko seq ak Mauritanie mu nekk suñ diggante ak Mauritanie ñu koy wax GTA mu am gaz. bu fa feeñ te bébé war a nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo koy génnee fi mu nekk ci suufu ndox mi fi mu nekk ci suufu ndox bi ëpp na ñaari kilomètres ci suufu ndox mi daanaka mat na ñetti kilomètres fi gaz bi nekk loolu jëlee ko fa dul yomb alors euh, def nañ fa xaalis bu bëri waaye ni ma ko leeralee léegi ci wàllu pétrole ak gaz bay séddoo la da ngay ñëw am sa tool amoo jumtukaay amoo alal amoo surga loolu am ku la ko defal bu ko defee ba génn nag ngeen séddoo mais yow booy séddoo moom bu jëlee benn yow ñetti loxo ngay am moom bu amee benn loxo yow ñetti loxo nga am ndax yow yaa moom. léegi ci wàllu BP yaakaar teraanga bi nga xam ni dañu fa bokkoon nekk dañu dem ba déggootuñu ci ñoom ni ñu gisee projet bi ñoom dañu gis ni projet bi li ñu ci mën a génne par bis ñun jàpp nañ ak suñu ay ingénieur ak ñeneen ñi ñu bokkal projet bi muy Cosmos que ni liñ ci mën a génne ñaar na ñoom li ñu yaakaar ni mën nañ ko ci génne loolu mooy bi ci njëkk. bi ci topp mooy ñun li ñu gën a euh, soxal président mu gën a soxal président mooy bu gaz bi génnee ñu utiliser ko ci centralu Senelec yi waaye utiliser ko fii ci réew mi mu développer agriculture bi mais gën a yombal li nga xam ne mooy payu courant bi. donc ñoom dañu bëgg bu ñu génnee dem jaayi bitim réew ñun dañu bëgg bu ñu ko génnee li ci ëpp ñu jariñoo ko fii ci biir réew mi loolu it d'accorduñ ci ñetteel bi nga xam ne tamit d'accorduñ ci mooy kañ lañu ñu war a tàmbali génne gaz bi foofu mu nekk. Euh, ci Kayar offshore profond muy ci gisement Yaakaar et Teranga ñoom dañu jàpp ni gën gee néew 2028 la ñu gën la ñu mën a tàmbalee génne gaz bi président ni non moom mënul toog di xaar ay 2028 2026 bëgg na gaz bi génn kon léegi comme d'accorduñ ci loolu yëpp dafay jaadu ñun nag ñu ànd ak koo xamante ni dëppoo na ak ñun gis-gis dëppoo na ak ñun euh, lii nga xamante ni moom la ñu président sant ñu doxalee ko mooy gaz bu gaaw a génn bu génnee askan bi jariñoo ko maanaam fii ci biir réew mi mu mën a indi wàññite ci wàllu courant bi waaye tamit ñu mën a utiliser sax lenn liy soqeekoo ci gaz bi mu dem ba ñu soppi ko lu mel ni xeetu engrais ngir suñu baykat yi gën cee mën a gis ñoom tamit seen bopp ngir seen rendement yi ñuy def ci wàllu mbay mi buñ doon am tant de tonnes à l'hectare tonnes yooyu gën a mën a bëri. oui GTA ñu ngi liggéey ak BPC GTA te te ça se passe très bien projet boobu normalement. Euh, deuxième trimestre maanaam euh, boo jëlee euh, at mi nga xaaj ko ñeenti xaaj ci ñaareelu xaaj bi la ñu jàpp ni ci la gaz bi ñu war ko tàmbali génne fi mu nekk foofu ci ndox bi te ñun ak BP ak Mauritanie ak Cosmos ñoo ko seq.